bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa moolana muhammadin alhaadi alamin wa ala alihi wa ashaabihi tayibin tahirin wa man ittabaahum bi ihsanin ila yawmi ddin bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu aq di leen balu aq di leen ndokkeel ci weeru tedd bi nga xam ne ci lañu tàbbi mooy weeru safar di weeru sëriñ Touba di weeru jullit yépp di weer woo xam ne saa yu dikkee jullit yépp seen xel dana dellu ci tukki bu màgg bu barkeel bi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim radiyallahu anhu tàmbali woon ci fukki fan ak juróom-ñett ci weer yi te muy tàmbali nattu ak tiis waaye di nattu ak tiis woo xam ne dafa làmboo ay ngëneel yu bari ak xewal yu màgg ba taxoon bi sëriñ bi jaaree ci ay jaar-jaaram bi nattu bi jeexee ba mu ñibbisi ci réew mi ba dem Mauritanie ba dem Ceyeen ba ñëw njaareem ci atam yu njëkk ci ci ni ko lenn ci boroom xam-xam yoone waxe ci la joxe woon ne nañ ko santale yàlla ci bis bi nga xam ne ci la fi jóge woon dem ci bu barkeel boobu muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar muy ndigal loo xam ne moom ci boppam jëfe na ko jëf na ko moom ci jëmmam digle ko door ko digle itam jëf ji dégg nañ ci mag lenn ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom ku ci wax ne woo na ko bis euh, digal ko mu jënd ab gàtt Euh, jox ko ab gàtt wecc wecc ko loo ko ko aw bëy wecc ko ko ko ab gàtt ba mu dikkee mu defar loo ko ko ba mu defar ko mu defloo ko ko ay sàmm ak ñu mu ko ko jox nga xam ne kon loola mooy tàmbali ndigalul euh, def ay berle ci bis bi mu jëfal ko boppam jàngul it alxuraan ci bis booba kon loolu mooy jëf ji ginnaaw ba it mu woor taalibe yi digal leen ne bis bi saa yu ñëwatee nañ koy màggal di ci sant di ko ci santale yàlla wax ne li tàmbalee ci ganaar ba ci gileem lu ci ay man nanga ko ko defal bokk na ci ñi gën a siiw ci ñi mu woo jox leen ndigal loolu sëriñ Balla Faali Jang bokk ci mag ñi nga xam ne moom ñu àndoon ak moom lañ waaye kon booba lañ tàmbali saa yu ñëwee ñu koy màggal eh, di ci jàng alquran di ci jàng ay xasaayit di ci def ay bernde waaye kenn ku nekk nag yaa ngi koy defee ci sa barab ca na ko mane daawuñu ko daje di ko defaat ci jamono jooja dégg nañ ñëpp dégg nañu ci Cheikh Salih radiyallahu anhu mu wax ne kon jullit yëpp war a àndandoo di ko feetu ñu àndandoo di ko def kon loolu day dundal bokku lislaam di boole baatu jullit yi di leen dëgëral loolu bokk ci njariñ yi ci am ci woote bi bokk na ci itam dana tax ñi nga xam ne ñooy ki nga xam ne mooy jëwriñ ju mag ji jiite yoon wi ci xalifa bi mën a jàkkaarloog mbooleem kilifay yoon wi yëpp ak mbooloom taalibe yëpp ak mbooloom jullit ñëpp wax ak ñoom ci fi jamono toll ak li mu bëgg ci ñoom ak taxawaay yi ñu war a taxawee ci lislaam war ko taxawee ci yoon yi war ko taxawee ci réew mi loolu lépp dana am occasion ci bis bi ngir def ko euh, kilifa yi ci des yëpp nga xam ne ñoom seeni mbooloo dañuy ñëw ci bis ci bis bi kilifa gu nekk danga am occasion mën a dajeek sa mbooloo ñu feddali kóllëre sa diggante ak ñoom waaye yow itam nga teg leen ci yoon dénk leen euh, ànd ak ñoom ci yoonu li nga xam moo doon cosaan ci doxiinu doxiinu yoon wi ak xamante gi nga xam ne yëpp dana fi juddoo ak li nga xam ne moo ci dox ci luy dal ci njariñu doomu aadama ci wàllu économie ak ci wàllu social ak sax ci wàllu euh, politique kon muy woote bu barkeel bu mag boo xam ne bu bari ay njariñ la njariñ feeñ ak yu nëbbu euh, ñu dolli ko nag ci li nga xam ne mooy cosaanul mbir mi dëgg-dëgg te muy loo xam ne dikk gi ak coowleeg yëpp warta tax ñu fàtte ko te mooy jëmmi màggal ci boppam rek mooy li sëriñ bi digloon mooy sant yàlla ci bis bi santle ko yàlla ci bis bi ci xéewal yi nga xam ne yàlla ko ci sababu tukki bi nga xam ne moom la tukki woon ci euh, ci ci géej gi ci bis bii euh, muy cant goo xam ne moom ci boppam def cee lim ci lim ci man lépp teewul mu xeet ci boppam bëgg taalibe yëpp àndandoo ceeg moom santle ko ci yàlla sant yàlla ci xeeti jaamu yàlla yoo xam ne ràññee na ca tudd yàlla te la ci gën a màgg moo jàng alquraanul karim ak di jàng xasaay itam yi nga xam ne moom la def di ci wéetal yàlla ak di ci deeale moom ak di ko ci sant ak di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak di ko tagg euh, waaye itam sant yàlla itam ci bernde lu ci waay man mu def ko li ko tàmbalee ci ganaar ba ci giléem te mooy li gën a siiw ci liñ ci gën a euh, bàyyi xel kon woote bi am na njariñ yu bari yum ci indi waaye bu mu taxit nit ñi fàtte jëmmi cosaanul woote bi te mooy cant kon ki yàlla dogal mu ñëw it na fexe ba cant googu moom na ko def ah, katoog it am gàllankoor it fa mu nekk na fa na fa na fa sant su ko fee ñu boole wuy sigi maanaam màggal sigi ak màggal te loolu mooy tax mbir mi mat na nga xam ne noonu ko séntoo kon lii daal ay kàddu yu gàtt la yu ñu doon wax ci eh, historique màggalu Touba nga xam ci njëlbeen ndigal la woon loo xam ne dañ ko doon jëfee ci kër yi ci jamono Cheikh Mouhamadou Fadil ci ànd gum ci ànd ak kilifa yëpp ñu juboo ci di ko defee Touba ba mu jur li nga xam ne moom la jur ci ab dayo ak njariñ yoo xam ne euh, day delluwaat ci lislaam di delluwaat ci yoon yi di delluwaat ci mbooloom taalibe ak mbooloom jullit mépp ak ci réew mi euh, ak ci àdduna sépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu